sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa man tabia hudahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoob lislaam boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila cheikh muhammadinil muntaxa di ñaan suñ borom mu dëgëral ko te naal yi mu naal yépp rek mu defe ko ni mu ko bëggee te ànd koo mbokki jullit yépp ni ñu ko baaxoo defe bis bu nekk ci waxtu wi ñu jël ab tomb boo xam ne tomb bu yitteel jamono lay doon tomb boo xamante ne bii buñ war a nafar la bu jamono laaj la ñu di ko fàttalante ak mbokki jullit yi ànd ko daayira muxaddamatul xidma tey jii nag ñu jël tomb bu am solo bokk ci tomb yooyu nga xam ne mañ nañ ne ci jamonoom lañ nekk jamono ji laaj na ko lool muy tomb boo xam ne tomb bu jamonoonte la ndax ku ne xam na ne jamono ji jokkookaay yi bari na lool fenn fu nekk nit ñi ñu ngi fi tasaare lu ñaaw walla lu bon ci mbooleem réseaux sociaux yi ak sax ci diggante nit ñi tomb boobu nag kon buñ ko dee waxtaane mën nañoo wax ne tomb bu jamono laaj la te mooy ishaatul fahisha wa xataruha ala alfardi wal mujtama muy siiwal lu ñaaw ak danger bi mu am ci nit ki ak ci société bi siiwal lu ñaaw danger bi mu am ci nit ki ak ci société bi mel na ni ma ko waxee léegi rek jamono laaj na ko kon tomb la boo xam ne bu ñu war a la bu ñu war xam la bu ñu war a jàngat la ndax bu ñu demee ba jamono ji ñu toll kenn ku nekk la ngay luññutu ak la ngay wër mooy lu ñaaw ak lu bon ci sama moroomum jullit ngir man koo siiwal loolu lu mat a waxtaane la waxtaane gi nag buñ ko defee dinañ mën a xam nañ koy wattandikoo ak euh, li nga xamante ne bii moom la lislaam jàppe ki koy def ki ñu war a defal tomb bi nag di almufattish sëriñ Muntaxa Jasra di ko xam ne jataay bii miin na ko lool di ko xam ne tomb yu mel nii miin na ko lool di ko xam ne itam xam-xamam màcc na ci wàllu gii ñu ko jox mel na ne doy na sëkk ci xamle ko rek muy bokk na ci ñi nga xam ne jàngukaay bu mag bii Cheikh Mouhamadul Mountakha tijji ci ñim ko dénk la bokk kon jàpp nañ ne ku xam-xamam mate la ngir mu waxtaane tomb bi kon dañ koy jox kàddu gi rek ngir xataayu waxtu wi mu dugg ci biir waxtaan wi kon Serigne Mountakha bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu amin bokk jullit yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul nu sunuy koor nangul nu sunuy julli ak sunuy naafila yépp ak mboolem jëf yu baax yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a jëf ci koor gi te mu taw feexal nu ba nu mottali weer wi ni nu ko tàmbalee woon ci ak wér ak ci tawféex ñu motale ko noonu noonu la dañuy ñaanee sunu boroom mu dolli aw fan gudd lool ak wér gu mat lool ak jàmm ju mat lool ak tawfiq ki nga xam ne mooy suñu kilifa ci yoon wi di Cheikh Mouhamadou Mountakha ba mu mott di yéeneen yëpp yim am ci diine ji am ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom yëpp innahu waliyu tawfiq wa bil ijabati jadir ñu yeesal sunu cant tam ak sunu mbégte ci daairatu muqaddamatul xidma ci teral gi ñu teral boole ñu ci liggéey bu màgg bii liggéey bu màgg bi nga xam ne yàgg nañ koo taxawee ñoom ak nun ngir teral weer wii nga xam ne mooy weeru ramadaan bu tedd wii waaye teral ko teraangay ruux waaye teral ko teraangay yaram kon taxawaay boobu nga xam ne yàgg nañ ci lool muy bu am solo boole gi ñu ci boole ñu ngi ci sant bu baax te di ci am mbégte di ñaan sunu borom tabaraka wa taala liñ ciy def lépp ci ay jëf ñi ci participer ñëpp ñi ci jëf ñëpp sunu borom nangu ko ba ñu am ci ndigal ba ñu am ci ngërëmal ki nga xam ne moom lañ koy liggéeyal muy cheikhul xadim radiallahu taala anhu sunu waxtaan tey nag dafa jëm rek ci tomb bi nga xam ne moom la sëriñ Asan wax léegi muy ishaatul faaxisha wa adraaruha ala alfardi wal mujtama wala wa xataruha ala alfardi wal mujtama mooy siiwal wax ju bon wala jëf ju bon ak lor yi nga xam ne am na ko ci nit ñi ak ci mbooloo mi noonu mu ko waxee nag dafa naa tomb la boo xam ne buñ ne siiwal rek ku ne xam na ne jumtukaay yi siiwal daal nay dugg te jumtukaay yi siiwal àgg na ci jamono foo xam ne ci ak avancé lépp lu ci nit bëgg rek daanaka mën na ko ci def ñu jàpp ne tomb la boo xam ne soxal na walla war naa soxal képp koo xam ne mbirum xeet wii itteel na la ak texeem àdduna ak alaaxira it itteel na la ndax bu la loolu utile da ngay xam ne texe googu ñu bëggal xeet bi kenn ku ne bëggal ko ko dafa am lu ko takke lool ak tomb bi lu ko takke lool ak tomb bi moo tax daayira bi tànn ko ngir ñu laa bii ren leen jaay bii ren leen ci lu suñu kem kàttan ak lu waxtu yu maye suñu ci génnee man cee jariñu man cee jariñe kon li ñuy tàmbalee waxtaan bi rek ci xam ne su borom tabaraka wa moo bind doomu aadama rafetal ko bind lool melal ko rafetal aw meloom lool laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwiim am ko melalee ba noppi nag defal ko ay cër defal ko ay cër yu muy jëfandikoo ay nopp yu muy déggee ay bët yu muy gisee aw làmmiñ bu muy tudde waaye ab loxo bu muy jottali ko ab tànk ay tànk yu muy doxee xéewal yooyu yëpp nag ci xéewal yàlla yi yu tuuti la ci yeneen xéewal yi nga xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu koo dajal wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha su ngeen doon xée lim xéewal yàlla yi mu leen defal lu ngeen lim lim du ngeen jeexal du ngeen lim lim rek du ngeen jeexal ndax loolu rek yenn xéewal la muy cër yim lay bindal nga di ko jëfandikoo ci say soxla loolu rek doyoon na sëkk ak cant waxumalaa laa nag yeneen xéewal yi nga xam ne moo moo moo moom la defal ñu xam ne it nag li war ci xéewal yooyu cantam moo jëfandikoo ko sant ci sunu borom tabaraka wa taala sant ko ci bañ koo weddi waaye fàttali ko ci bañ koo fàtte sunu borom nee na bi ngeen fii ñëw di wàcc ci suuf si indaale leen dara maa leen bind ngeen génnee ci seeni wayjur andaale wu leen dara ma defal leen ab ay dégg defal leen ab gis defal leen am xel waaye lu tax loolu lépp ma def ko muy laallakum tashkuruun ngir ngeen sant ma rek ngeen sant ma rek te cant li ci gën a yéeme mooy sunu borom yërmandeem ak xéewalam dafa rëy ci nit ki ba ëpp ndax loolu lépp nee na dama la ko defal ngir nga sant ma waaye boo ma santee ba noppi dama lay dolliwaat moo tax kenn mënut a sant yàlla kenn mënu koo sant ndax bu la defalee xéewal ba nga sant ko mu dolli la da koy santaat boo ko santaatee mu dolli waat la nga santaat loolu nag day continuer rek di wéy kon yàlla kenn mënu koo sant xanaa daf lay jagleel moo tax gis nga sëñ Tuubaa radiyallaahu la anhu rum naa shukuura la si lay wax rum naa maanaam ko damay sant mais damay koo sant day mel day saraxu yàlla sarax ma ma sant la sarax ma sant la kon cant yàlla foofu la toll nekkul lu ndaw nekkul lu rëy lu tuuti ndax yombut ndax la in shakartum la azidannakum su ma leen defalee xéewal sant leen ma waaye su ngeen ma santee ma dolli leen ndollan loola cant da cay waraat bu ñëwaatee cant waraat ca bu ñëwaatee cant waraat ca naka noonu cant yàlla nag bari nañu koy waxtaanee dañuy sant danuy sant dañuy sant waaye cant du dara lu may xéewal gi yàlla may ba nga ji ko sant nga def ko ci li bëgg gi yàlla may lu mën a doon alal la daraja la leneen la loolu lépp nga fab ko delloowaat ko ci la tax yàlla may la ko loolu rek mooy cat nga delloo ko ci li tax yàlla may la ko bu ko defee bu dee cër yi la yàlla daf la ko may danga ko ciy cant danga koy delloo ci li yàlla bëgg ci cër yi nga def ko ci li yàlla bëgg nga xool ko nga xool ko li yàlla bëgg nga laal ko nga laal ko fi yàlla bëgg nga dem fa nga dem fa li yàlla bëgg nga dégg ko nga dégg soo defut loolu rek sëntoo yàlla ci say cër ak loo mën di wax na kon jëfandikoo ko ci li gërëmloo yàlla te bañ koo jëfandikoo ci li koy merloo ndax soo ko jëfandikoo ci li koy bégloo mu tàbbal la ci àjjana te mënoon naa ñàkk ndax moo la ko defal nga sant ko ci rek soo ko defee ci lu ko bégloowut mu tàbbal la safara wane na ne cantu xéewal mi ngi dellu ci jëfandikoo ko ci li gërëmloo yàlla li yàlla bëgg la yàlla lu mu la defal rek am na lu mu bëgg nga defal ko ko ci sant ko nag mooy defal ko lam bëgg ca lam la defal loolu rek mooy sant yàlla Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ko ci maxaaliqu niiraan ne na na ngeen wattu seen cër yi wal taxfasul aadaa batnun wa lisaan farjun wa rijlaani wa aynaani yadaan saabiha usnaani man la aaraha anil maasi kulliha an yantafia nee na seen cër yi leen yàlla bindal muy juróom-ñaar na ko sàmm bu baax a baax a baax ba ci njëkk mooy biir bi bu ci def lu neexul yàlla mukk làmmiñ wi bu ci tudd lu neexul yàlla mukk pay bi bu ci def lu neexul yàlla mukk tànk yi bu ci dox lu neexul yàlla bët yi bu ci xool lu neexul yàlla loxo yi bu ci laal lu neexul yàlla nopp yi bu ci déglu lu neexul yàlla nee na koo xam ne sàmm nga yii rek da nga jariñ daal ñuy leralaat tam ci biir loolu néew cër yooyu kat benn bu benn juróom-ñaari cër la juróom-ñaari cër la cër boo ci mooy yàlla dafa janloog benn bunt ci sawar bu cër bu ne dafa am benn bunt bu mu janloo ci sawar soo mooyee yàlla ci cër booba cër boobu moo lay dugal sawar am na bunt bu jàkkaarloog loxo boo mooyee yàlla ci loxo ba ci buntu sawar booba ngay dugg am na bu janloog tànk am na bu janloog bët am na bu janloog le yépp benn bu ci nekk am na bunt bu mu janlool kun wa man yakun xaafisaha laa yadxulu baaban min albibaani fi ma yanqul nee soo watoo cër yëpp doo dugg benn ci bunt yooyu doo ci dugg yow da ngay mucc doo dugg benn cër boo fexe ba sa yëpp doo benn cër waaye boo ca moyit wa man asal mawla bi odwin abada fa baabuha baabu azabihi xada boo ca moy nag bu yomal xeyabe ca boobu ngay duggee sawara ca boobu ngay duggee sawara kon doomu aadama dafa nekk responsable ci ay cëram te cër tam dañ koy seere ëllëg kenn ku ne ëllëg danañ la laaj cër yi ñu la joxoon loo ci jëfee waaye cër seen bopp yi danañ la seere na la lii nga jëfee woon ci nun benn cër bu ne da nga seere ne lii lii nga jëfee woon ci nun wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna alsamaa walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masula cër bu ne responsable nga ci yow mi ñu ko jox waaye dalu seen cër danañ leen seere yowmal xiyaam bu yowmal xiyaamee làmmiñ du wax ne loxo def na nangam tànk du wax ne loxo def na nangam waaye làmmiñ day wax lim def moom loxo jóg wax lim def ak fam demoon ak lam laaloon tànk wax fam demoon bët wax lam gisoon nopp wax lam déggoon ñoom ñëpp day mel ni jëmm ji dañ koy def ñaar cër ya taxaw fële nit ki taxaw fële ñoom ñuy wax di ko seere ne yaa yaa defoon nangam ci man yaa defoon nangam ci man yaa defoon nangam ci man yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjihim wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamaluun qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay li ma shahidtum alayna bu ko defee nga taxaw foofa naan lu tax ngeen di ma seere lu tax ngeen di ma seere seere yu ñaaw yi lu tax ngeen di ma seere seere yu ñaaw yi mu ne antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi tuddloo ñëpp waxloo ñëpp moo ñu waxloo tey aw ñu seeral boobu loolu mën naa xalaat bu baax a baax a baax ci doomu aadama boo xam ne am nga ak yéeg cër yooyu nag yépp am solo yépp am solo waaye ba ca gën a am solo gën caa bari danger gën caa am lor mooy làmmiñ làmmiñ bi làmmiñ làmmiñ li wax moo ci gën a am danger ndax lu ndaw la ci gis yaa ngi ko jot sa biir mu lool nga di ko xool waaye nag lu màgg la loo xam ne mënees na cee amee ajjana mënees na cee amee safara ci làmmiñ képp am na ñuy wax naan yàlla du fay wax bay jëf xam na waxin la waaye kay yàlla dana fay wax wax rek yàlla dana ko fay wax wa ma lana la numinu billahi wa ma jaana min alxaq wa ma alqawmi salihin fa athaabahum allahu bima qaalu nee na ñii kat li leen tabal ajana ay wax yu war rafet yu ñu wax rek te gëm ko moo leen tabal ajana ay wax yu ñu wax fa asaabahum laahu bimaa qaalu li ñu wax la wax waaye am na ay wax ju ñu dugal sawara wa qaalat al yahuudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu bimaa qaalu yahuud yi dañu yàlla daa nay yàlla neen déet déet yàlla na déet yàlla na ngeen dee yéen yàlla na ngeen yàlla na seen loxo yi damm dañuy yàlla yàlla dafa kotoñ kotoñ kotoñ loxo dafa kotoñ du joxe yàlla neen yéen la seen loxo kotoñ waaye walu ay nuu bi ma qaalu li ngeen wax yàlla rëbb na leen ci dañ leen ci tabal sawara kon wax dugal na nit sawara waaye wax dugal na nit ajra am na solo torop fonk wax yonent bi nee na cër yi yëpp bu ñu xëyee dañuy muslu làmmiñ cër yëpp dañuy muslu làmmiñ di ko wax na ko ragalal yàlla ci nun sun mbir yépp ci yow la aju waaw fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna soo jubee rek ñun ñëpp ñu jub soo jaaree yoon rek ñun ñëpp ñu jaar yoon soo jaarul yoon soo dëngee ñun ñëpp ñu dëng day mel ni moom moo leen ilif soo xëyee mën a mën a mën a sàmm saw làmmiñ suba ba ngoon doo ci wax loo ci wax bar ngaa mën ngaa mën ngaa dogg ci ne sa cër yi ci yëpp yi danañ def li ñu war a def waaye su làmmiñ ñu defee leneen rek cër yëpp danañ jàpp def leneen kon loolu wane na ne làmmiñ lu am solo la ndax loo xam ne bu doxee rek cër yi dox waaye bu doxul cër yi du dox loolu lu mat sàmm la te loo ci def lu mu tuuti tuuti dañu la koy isaab ëllëg dañ koy konteel régler la ko ëllëg ci làmmiñ maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na amul benn baat booy wax mu génnee ci sa gémmiñ gi lu dul am na ñaar ñu taxaw di ko bind raqib ak baat boo wax rek lu génn ci sa làmmiñ rek am na ñu bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat nañu beneen addis boo xam ne moom wane na solos làmmiñ mu ne nit a gi nii day dana wax benn baat génn ko ci làmmiñam bu ndaw waaye dana ca amee ngërëmal yàlla loo xam ne kenn xamut nu muy toll ay darajaat yu mag la ko ci yàlla may ci benn wax bu mu wax rek bàyyiwu ci xel sax bi mu koy wax waaye tedd na rafet na jekk na yàlla may ko ci ay darajaat yoo xam ne amut fu mu yem waaye beneen waaye dana wax ci làmmiñam benn baat kepp bu ñaaw bàyyiwu ca xel ba mu koy wax bàyyiwu ca xel laa yàlla xaalaxaa baalam bàyyiwu ca xel de wax na ko ba noppi jàpp ne waxut dara waaw yahwa bihi fii jahannama abada ma bayna al-mashriq wal maghrib nee na yàlla dana ko ci sànni sawara lu toll ni diggante penku ak sow penku ak sow ci gis rek ni mu soree ñu sànnee la ci sawara bala ngaa àgg fa nga jëm dana toll ni diggante penku ak sow ci benn baat boo xam ne génne nga ko ci salaat yi war nañu wattandiku bu baax a baax a baax a baax ci benn baat boo xam ne sax yow mi ko wax sax defoo ci attention bàyyiwoo ci xel muy bu baax mu yóbbu muy bu bon gis nga fi mu la yóbbu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat nañu beneen addis nañu yéen ñëpp de képp ku ma warlul li nekk ci diggante ñaari ngaamam yii muy muy muy muy muy làmmiñam bii ak li nekk ci diggante ñaari tànkam yii muy pëyam képp ku ma warlul yooyu ne ma danaa ci def li ma ci war a def at manu lahul jann ma warlul la ajjan ñaar yii rek sa làmmiñ sa pëy bu fekkee war nga nga doo ci def lenn loo ci war a def danaa la warul àjjana man yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na benn benn saxaaba bu ñuy wax Muaas ibnu Jabal Muaas ibnu Jabal dafa dikk ne yonent bi yow na yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla danoonu jàppee suñ waxe wax waxe yi wax wax wax yi ñuy wax rek di waxantu noonu rek di waxantu ndax yàlla danañu ko jàppee da commence ya ya ya day mel def na ko yàlla nga dee maas daal yaa yaa doy waar maanaam mel ni ku koy ñaan yàlla hal yakubu naas naasa ay hal yakubu naasa ala naari fi fi wujuhihim illa xasaidu alsinatihim yow maas da ngaa defe ne nit ñi boo demee yowmal xiyaam fekk leen ci biir sawara ñuy tëmb tëmb ci biir sawara la leen fa yóbbu du dara lu dul seen làmmiñ bi seen cati làmmiñ ñu ëpp ci nit ñi boo leen fekkee sawara boo leen laajee loo leen fi indi seen làmmiñ moo leen fi indi seen làmmiñ képp moo leen fi indi texte yooyu nu suus yooyu yépp li muy wane mooy am solo gu làmmiñ am solo ak danger gu mu danger ak war guñ ko war a wattu nag ci lépp loo xam ne mooy yàlla la jëw ak rambaaj ak xasteeg yépp ci yi nga xam ne yàlla da ko araamal te tëkkoo ci tëkk yu baree baree bare yooyu mu tudd yépp ay wax la waaye bu ci nekk yàlla tëkku na ca ku ko def tëkku goo xam ne ku ko xam te gëm ko loo ko def ku ko xam te gëm ko doo ko def kon làmmiñ noonu la amee solo boo demee ca mu jawaru nafiis sëñ Tuubaa nga koy feddliwaat wa xifsuhu lisaana min faxshaai wa min qabili alqawli walmiraai nee na bokk na ci yi war ci doomu aadama mu kallaf bu dekkee mu kallaf li ko war bokk na ci wattu aw làmmiñam ci wax ju bon ak jëf ju bon wax ju bon wax ju bon daanaka lan mooy wax ju bon mu ne la xaqiqatul qawli al qabiixi kullama takunu min usa ayahin la wax joo xam ne fu ñu ko tuddee ñëpp sëgg ku ko wax rek xam nga ne wax ju bon wax ju bon bokk na ci la koy tegtale mooy yow mi ko wax sax da ngay rus waaye ñu ngi koy waxal ñoo lay gën a rus lépp lu mel noonu rek xamal ne wax ju bon baaxul lépp loo xam ne boo ko waxee yow xam nga yow boo rusee xam nga boo rusus xam nga nit ñi nga jàkkaar loolu ñoom xam nga xam nañ rus nañ wala rusuñu ci baat boo xam ne génn nga wut sigg ni lépp lu mel noonu rek loolu wax ju bon kon yooyu yëpp wane na solo goo xam ne làmmiñ am na ko solo ci mën a defar dara mën a defar nit ba yóbbu ko àjjana waaye mën a defar mën a yàq nit ba yóbbu ko sawara ci làmmiñ la kon loolu mooy importance su làmmiñ bu ñu xamee importance su làmmiñ nag li ñuy waxtaane tey day daal di feeñ foofu da mooy ishaatul faaxisha mooy tasaare lu rat lu ñaaw ci sa làmmiñ tasaare lu ñaaw bari na waaye li ñuy waxtaane tey mooy tasaare lu ñaaw ci sa làmmiñ wax wax ju ñaaw ci sa làmmiñ moom moom ishaatul faaxisha boobu nag muy tasaare lu ñaaw dafa nekk benn phénomène wala benn benn mbir moo xam ne dafa tasaaroo ci nii tasaaroo goo xam ne kenn xamul fu mu àgg ndax li sëñ dañu waxul léegi maanaam nit ñi dañoo am ay waxukaay te amuñu lu ñu wax ñuy waxantu loolu mooy li xew am nañu waxukaay xamuñu lu ñuy wax ñëpp yi waxantu ku ne toog ci sa diine rek di waxantu di waxantu di waxantu te waxantu boogee nga ne du dara te gis nga loolu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga nga génn ci sa làmmiñ benn baat def ko ab audio sànni ko defe ne du dara mu sànni la ci biir sawar sànni la ci biir sawar dafa dem ba <coughs> wax ju ñaaw jooju sax di ko di ko tasaare dafa dem ba nekk ab commerce commerce la léegi am na ñoo xam ne dañuy tijji seeni euh, kii groupe wala euh, wasaayil yooyu ñuy jëfandikoo yépp dañ koy tijji luñ cay def wax ca lu ñaaw ndax nit ñi boo waxee lu ñaaw lañ ngay gën a diglu loolu responsabilité bu rëy la ñun ñëpp dañuy wax naan sangam ab saagakat la diw sangam ab waxkat lu bon la diw sangam ab waxkat lu bon lu tax mu di ko wax mais boo xoolee fa koy waxee ay junni junni junni ñoo koy diglu ñoo koy seetaan looloo tax ñu ko def bu fekkoon ku wax lu ñaaw ku ko seetaan daal ne ko karek mu yem fa bu ëllëgee ka ko waxoon xam ne kenn digluwu ko du ko waxaat waaye bu ko waxee ay junni junni ñoo koy diglu mu ne kon man li may wax saf la nit ñi te nit ñi kat moom rek la ñuy wax diw sàngam saagakat la fekk ñun ñëpp ay saagakat lañ ndax ñun ñëpp a koy déglu ñun ñu koy déglu ñëpp ay saagakat lañ ñëpp kon am na ñu ko def ak commerce bëgg a siiw bëgg daraja wala politique yóbbu leen ci wala economie yóbbu leen ci loolu lépp nit ñi dañ koy jëfandikoo dañuy jëfandikoo wax ju ñaaw ngir daggu njariñ yooyu ay junni junni di leen diglu di leen seetaan ci wasaayil yooyu nga xam ne ñoo koy moom lañ moom lañ koy jëfandikoo kon faaw ñu def autocritique ci suñu bopp suñ gisee kuy wax lu bon ñun ñëpp ñu di ko xas waaye nun ñi koy diglu ñi ngi wax lu bon ñun koy diglu ñi ngi wax lu bon loolu war na danañ àgg feneen foo xam ne yonent bi sallallahu dana fa wax loolu ci kuy wax lu bon ak ku koy siiwal ki koy siiwal mooy ki koy diglu rek ki koy diglu am na ñoo xam dañ koy diglu ba noppi tasaare waat waaye ku ku wax lu bon ku ko diglu rek ànd na ngaa moom ci lam def yow kon làmmiñ foofu la nekk ci lor ju mën a lor doomu aadama ak danger du danger bu ñëwee ishaatul faaxisha nag ishaa mooy tasaare dara tasaare wasaare dara siiwal ko ak lu man a doon mën naa doon lu baax mën naa doon lu bon siiwal rek tasaare mooy isha batu isha loolu lay teg waaye buñ ko buñ ko xoolee nag ci biir nag mooy xabaar bu wérul xabaar bu wérul boo xam ne amul cëslaay delluwul fenn boo laajee ka ko wax mu ne dégg naa ko nee nañ dégg naa nee nañ rek la lay wax waaye du la wax fenn fu mu ko jëlee xabarun makzuub xayru mawsuuqun fii kenn du ko sukkandiku nga di ko tasaare ci nit ñi loolu mooy isha baatu isha loolu lay firi waaw bu dee faaxisha nag li ca gën a gàtt rek mooy lépp loo xam ne lu ñaaw la ci ay wax ak i jëf kullu ma azuma qubhu lu ñaaw lu rëy moo xam ay wax la moo xam ay jëf la moo xam ay wax la moo xam ay jëf lu ñaaw lu rëy waxuma lu ñaaw lu ndaw sax waaye lu ñaaw lu rëy ci ay wax ak ay jëf loolu mooy ishaa kon boo ko dajalee ne ishaa mooy siiwal alfaaxisha mooy wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw nga ne ishaatul faaxisha nga boole ko mooy tasaare siiwal wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ci sharia sharia nag mooy atte foofu wax ji ñaaw na sharia moo koy wax wax ji rafet na sharia moo koy wax jëf jii ñaaw na jëf jii rafet na sharia moo koy wax kon lépp loo xam ne sharia ñaawlu na ko ci wax ak i jëf ku koy siiwal di ko tasaare yaa ngi def ishaatul faaxisha yaa ngi def ishaatul faaxisha buñ ko xoolee nag day mel ni alxuraan ni mu ko jàngalee moom ishaatul faaxisha day mel ni ñaari xaaj la faaxisha ci boppam ñaari ñaari xaaj la ñaari xeet la faaxisha zahira ak faaxisha boo xam ne baatina la faaxisha zahira mooy ñaaw téef bu feeñ bi nga xam ne cër yee koy def cër yi ñoo koy def ñaaw téef boo xam ne bu feeñ la cër yee koy def mel ni njaaloo mel ni jëfee jëfi waa Luut tuumaal nit wax ju ban lépp ay cëre koy def làmmiñ week yooyu ñoo koy def waaye am na yeneen ñaawteef yoo xam ne xol a koy def al kibr wal riya wal ak yu mel noonu ak loolu lépp ay jëf la yu ñaaw yoo xam ne wala ay wax yu ñaaw yoo xam ne nit a koy def waaye xolam la koy defee yi muy defee ci xolam moom nañu ñu tuddee al fawaaxis al zahira ba léegi tuddee ko fawaaxish al al baatil ñaaw ñaaw yi nga xam ne yu biir la ak ñaaw ñaaw yi nga xam yu la yu biir yu bitti yi mooy yi ñëpp yi gis nga di ko def yu biir yi nag mooy yi nga xam ne ci sa biir la nekk yow te moo gën a danger sax far parce que ñu bari duñ ko yëg bari duñ ko yëg qul innama xarama rabbi wal fawaxisha ma zahara minha wa ma batan yàlla neen araamal naa fawaxisha yépp yu ñaaw yépp araamal naa ko ya feeñ ak ya nëbb mooy yooyu ñu wax yi ca feeñ ak yi ca nëbb moom baatu faaxisa boobu nag muy ñaawteef dafa rot ci alxuraan lu bari yoon yu bare bari lool ay fukki fukk la rot ko ci alxuraan baatu faaxisa wala fawaaxis wala lu ca lu ca lu ca tukkee lu ca jugee am na fa muy rot foo xam ne maasiya la fay firi maasiya inna salaata tanha anil fahshaai wal julli bu sellee mel na ma war a mel day dox nit day dox diggante nit ki ak mooy yàlla mooy yàlla kuy julli te di ko sellal doo mën a mooy yàlla danaa ko wax ne ñu baree bari duñ def attention ci loolu dañuy wax ne julli guñ nangu kenn xamu ko yàllaa ko xam ah kay julli guñ nangu xam nañ ko jullit bu la bu doxee sa diggante ak mooy yàlla nangu nañ bu doxee sa diggante ak yàlla nangu nañ kon baat boobu dana firi mooy yàlla ci ci alxuraan dana firi itam njaaloo te mooy li ëpp fu muy ñëw ci alquran loolu lay firi loolu lay firi wallaati yatina alfaxishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arbaatan minkum ak yeneen yu bari yoo xam ne faaxisha bi njaaloo lay firi foofu am feneen fu muy fi ñëwee fokk na day firi jëfi waa lóot xawmu lóot yoon si yàlla lóot waa jëf jëf ci bon ja waa ñu doon jëf di ko defante ci seen biir jëf ju bon joojee moom it dana faaxisha dana ñëw tudd ko tudd noonu wal wutan id qaala li qawmihi atatuuna alfaaxishata ma sabaqtum biha min ahadin lil alamin yàlla na luut ba mu waxee nit ñi nitam nañ ne leen yéen a def lu bona bona loo xam ne day kenn mus leen cee jiitu kenn ku yàlla bind rek mus def lu bon lii ngeen di def booba nag lu bon loolee nag faaxisa la ko tuddee moom alxuraan dana ñëw tam ci beneen yoon faaxisa ñu jigéen ju fay jigéen ju fay rek bàyyi këram dem ngir mer danañ ko tuddee faaxisa waaw wala taaduluhunna li tadhabu bi baadi ma aataytumuhunna illa an yatina bi faaxisatin mubayina fay dana tudd noonu waaye dana tudd it wax ju bon rek wax ju bon yépp wax ju bon rek faaxisa dana ko tudd lépp wax ju bon ci ay lépp lu wax ju bon qul innama xarama rabbiyal fawaaxisa ma zahara minha wa ma batan yooyu ñu waxoon wax ju bon mën naa firi loolu fawaaxisa boobu beneen beneen beneen tegtal tam lam yakun nabiyu faaxishan wala mutafaxishan ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkutoon ku ñaaw làmmiñ yonent bi nekkutoon ku ñaaw làmmiñ nekkutoon ku ku ñàkk kersa rafetu làmmiñ la woon lu baax rek la doon wax faahishan gis nga kon loolu mooy wax ju ñaaw laysa almuminu bi taani wala laani wala alfaaxish wala albadi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na ab ab ab ab ab ab ab julit dëgg dëgg dëgg ab julit dëgg dëgg du xaste ab xastekat du doon julit ay ab julit dëgg dëgg aw làmmiñam du ñaaw ab julit dëgg dëgg du ñàkk kersa ñett yooyu de ab julit du ko def làmmiñ mu ñaaw mën a xaste ñàkk kersa ab jullit du ko def koo gis mu def ko rek yéegal na ak gëmam jàlla manqué loolu nag suñ dee wax faaxisa fii nag loolu lañ ci jublu mooy wax ju ñaaw faaxisa firi yooyu yëpp dana ko firi waaye ci wax ji ñuy waxtaanee ñun faaxisa moom la ñuy wax wax ju ñaaw fawaaxis ay wax yu ñaaw wala ay jëf yu ñaaw moom la firi foofu léegi nag lan mooy atteem yow mi ko def xam nga ko wala xamoo ko yàlla lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu sàkk rek wutal na ko atte mu kàllaf noonu ngeen ko xamee atte atte yooyu lu ne rek daa war wala dañ koo sib wala dafa araam wala dañ koo daganal wala juróomi atte yi bu kàllaf yooyu nga xam ne jëf ju nekk rek am na faaxisha bi ishaatul faaxisha moom it am na atte ci ndax li tax sunu borom wutal ko ay atta yu tool noonu ak yu mettee noonu mooy dafa bëgg société bi ñuy dund ci ak déggoo ñun ñuy dund ci ak déggoo di dund ci jàmm di dund ci soppante waxante lu baax defante lu baax waaw te loolu du mën a am lu dul ne ku ne ci nun la ne ci moom da ko yéene moromam li nga bañ ku la ko wax da koy bañ a wax sa morom loolu mooy ëggul li nga bañ nga xam ne bëggoo kenn wax la ko bëggoo kenn wax ko sa kenn yow it da koy bañ wax kenn bañ ko wax ko kenn jullit dëgg dëgg noonu lay mel laa yuminu ahadukum xatta yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsihi lislaam dafa dem ba dafa araamal sax lépp luy laal derul nit ki ak ay secret lépp loo xam ne làmmiñ mën na koo tudd luy ñaawal nit ki wala muy ñaawal daraam lislaam dafa araamal lool moo tax ñi ñi ñi ñi def seen liggéey muy loolu ñu def seen liggéey muy loolu di di di wër di di yàq deri nit ñi di wër di yàq deri nit ñi di tasaare wax ju bon ci biir société bi gis nga leen yàlla wax inna alladina yuhibuuna an tachi alfahisha fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal axira wax ju rëy la a ñiy dox ci biir société yi di tasaare wax ju bon di ko diffuser di ko euh, partager man loolu partager laa ko tuddee inna si yuhibbuna an tajal fahisha mooy ñiy partagé lu bon wax ju bon wala ju bon di ko partagé ci biir jullit yi nee na lahum am nañ mbugal mu rëy mi ngi di xaar waaye asaab du asaab waaye asaab <coughs> alim xam nga yàlla bu ne alim rek ëpp na mu metti maa ngi leen koy xaaree ëllëg waaye mbugal ma yem ci ëllëg waaye tey fi dunya wal képp koo xam ne da ngay siiwal lu bon di ko diffuser di ko partager yàlla nee na maa ngi lay xaare mbugal mu bon mu metti ci àdduna ak ci alaxira ci àdduna mbugal ma mooy bu doon lislaam day taxaw dañ lay xas ki nga ki nga wax wax ju ñaaw tuumaal ko loo xam ne njaaloo lay lay nuru dañ lay xas dañ lay dóor juróom-ñetti fukki yar yow mi ko def <coughs> dañ lay dóor juróom-ñetti fukki yar ci kanam mbooloo mépp ngir loolu nga def bu yomal xëyaamee nag fi dunia wal axira suñu borom tabaraka taala di la xaaree mbugalam moom di la xaaree mbugalam wallazina yarmuna almuxsanaat summa lam yaatu bi arbaati shuhada fajliduhum samanina jalda yàlla ko wax nit ñi nga xam ne dañuy yàq deri nit ñi te tëguñ ko fenn deri nit ñu baax ñi ñu di ko yàq te tëguñ ko fenn nee na ngeen leen dóor juróom ñett fukki yar waaye bu leen ci yem rek waaye wala taqbalu lahum shahada abadan bu leen leen nangul sax seere matatuñ seere ku jikko woo jikko ju mel noonu nee na mëtatoo seet wa ulaikumul fasiqun te ab fasiq la koo xam ne génn na ak topp kook kon loolu lu metti la loo xam ne képp ku ko seetlu te gëm ko danga nga wattandiku siiwal lu ñaaw te aaya boobu ñu ngi wàccoon ci ñi nga xam ne ñoo doon wax wax ju ñaaw ja ca sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax nga xam ne doomu adama yàgg naa sikk doomu adama yàgg naa sikk ca yonent ba boobaak léegi junniy at ak juróomi téeméer rek wala ñeenti téeméer rek nanga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu teddee moom ay soxnaam ni ñu teddee nit bon ba àgg ci di leen tuumaal lu bon nit ak morom àgg na foofu ca booba yàlla di wax yàlla di wàcc naan yonent bi ne ma ne yonent bi naan ah yàlla naan ko ana mu ne ah nit ñi ci boobu seenu ngoon aggoon na ci ñi ñaaw njort di tuumaal soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala loolu maanaam loolu rëy na rëy goo xam ne dem na ba alquran di ci wàcc nga xam ne alquran dafa wàcc ci asamaan wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir naqarlu loolu ñu def bon gum bon ñaaw gum ñaaw alquran naqarlu ko wàcc ay aaya yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy jàng kuy julli timis bii bu la neexee jullee di ko jaamu yàlla loolu rëy ci suñu borom tabaraka wa taala kon faaxisa noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala araamale te lépp loo xam ne jëf ko dafa araam wax ko dafa araam tasaare ko dafa araam lépp lu araam wax wala jëf ci nit ki mu def ko tasaare loola tam day topp loolu day araam moom waaye li gën a yéemu mooy ki def ñaawteef fi moom bu ko defee yam ci moom ñaawteef lu mu bon bon bon ak lu mu bon bon bon rek boo def jullit ñaawteef boo mën a def yamale ko ci sa bopp rek yàlla mën laa jéggal yàlla li jëntiwut loolu li nga def nëbbu ko yow rek yan ci loolu moom yàlla mën na la ko jéggal boo ko tubee waaw waaye nag li gën a garaaw nag mooy ki ko fab nag tasaare ko ki ko fab tasaare ko loolu mooy li gën a garaaw ndax ki ko fab tasaare ko diviser ko partager ko ki defoon bon ne moom def na ko am na bakkaaram waaye yow nga jël ko tasaare ko diviser ko partager ko fu ne ay junni junni junni su borom nee na képp ku ko seetaan wala képp ku ko diglu bakkaar bam dana am bakkaaram moom ñu ko seetaan diglu ko waaye yow mi ko ko jox da nga am bakkaaram keneen ku ko seetaan nga am bakkaaram maanaam boo ko boo ko partagé woon junni nit danga am junni bakkaar ak benn sa bos bopp bi ak junni yooyee nga xam ne ñoo ko seetaan wala ñu diglu yow bi partagé lu bon lool da ko am luñ gën a bari nag nga gën a bari nga ko partagé junni nit junni nit yooyu kenn ku ne partagé ko junni ni junni ya toll yow danga am bakkaar yu toll noonu ak sa bos kon dañu war a partagé bu baax a baax a baax a baax bala yow bés suñu baaraam di partagé dara nañ ko xool bu baax a baax ndax bu xasee jàll rek moom jeex na ku ko seetaanati ku ko diglooti rek bakkaar bu mu ci am la am ko yooyu sa bopp bakkaar bu mu ci am rek te te te man te léegi jumtukaay xarañ nga xarañ koo xam ne mën na fee nekk ba adduna tukki wax jooju nga tasaare mën na fee nekk ngay am ay bakkaar ba adduna tukki nga faatu bu yàgg wocc fi say bakkaar xam ne bu yàgg waaye yaa ngi fi ci bakkaar yoo xam ne da lay fekk fa nga nekk loolu lu lu lu mat xam la ñi nga xam ne toll nañ ci di yor ay jumtukaay tasaare jumtukaay boobu jumtukaay dong la baaxut bunut mën na lu ne mën naa def lu baax lu ne mën naa def lu bon lu ne waaye soo koy jëfandikoo ci leneen nag xamal ne lii moo la cay fekk du yomb la toog sa biirum ne rek di partage di partage di partage di partage soo noppee rek faatu nga bu yàgg say bakar nekk fi nag di dajaloo di la fekk fa nga waaw li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari alladina yudilluuna bi gayri ilm yow mi leen ko jox da ngay am bàkkaar dañuy am bàkkaar nga am bàkkaar keneen ku ko jotat am bàkkaar te yenu say bàkkaar yenu bàkkaar yi ñeneen ñeneen te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci beneen hadis man daa ila huda kaana lahu min al ajri misla ujuri man tabiahu laa yanqasu min ujurin shay'an wa man daa ila dalala kaana alayhi min al ismi misla athami man tabiahu laa yanqasu dalika min athamihim shay'an yow mi yow mi woote lu baax ku la ca topp nga am ca yool bu toll ni ba mu ca am waaye yow mi woote lu bon ku la ca topp nga am ci bakkaar bu toll ni ba mu ca am ak bakkaaru keneen ku ko ku ko def waaw loolu la sëñ Tuubaa wax ca eh, Munawwir Sudur moom it maanaam ne jëw bu leen jàpp ne kii jëw rek moo am bakkaar wala tazunnu anna ismal ghaybati taku yaxtasu bil qaa'ili fil musibati kii jëw rek déedéet musiba mi yemut ci moom de inna alladi alxibata qad yastamiu mushariku lqaaili fi ma yasmau nee na yow mi déglu kii jëw moom day am bakkaar yow mi déglu rek xëy yow déglu képp nga ci moo la ci fekk yow waxoo sax defoo dara da ngaa toog rek déglu waaye yéen a yam yéen ñaar bakkaar bu mu am da nga ko am bakkaar bu mu am da nga ko am moom ñaawteef yooyu nag am na ñaawteef yoo xam ne ay xalaat la fa waaxe fikriya yoo xam ne ay xalaat la nit ñi am nañ xalaat yu ñaaw yu bon yoo xam ne ñu ngi koy tasaare ci àdduna bi buñ ko yëgee ak buñ ko yëgut ay xalaat yu bon ay bidaa ay réer ay xalaat yu yu yu doy waar ah, yoo xam ne ñu ngi koy tasaare ci ci àdduna bi am na ay xalaat yoo xam ne commerce la commerce nit ñi dañuy commerce ci xalaat yu bon xalaat yu bon sax dañ ci commerce jëf waaw alal yu wat dañ ciy commerce danga fekk koo xam ne day ubbi ab télévision maa mu ubbi ab rajoom waaye lam ci jublu lépp mooy tasaare lu bon tasaare lu bon rek mën na ko muuree lu baax ci kaw gi nag nit ñi defe ne lu baax lay def day joxe xibaar day joxe nangam fekk la ko la ko lal lépp ci biir lu bon lay joxe bu joxee benn bu baax joxe fukk yu bon wala sax mi ngi joxe lu bon te ñu ngi koy jox dañ koy jël ndànk-ndànk te duñ ko yëg dañ koy jël ndànk-ndànk média yu baree bari yoo fi gis ci jamono bii boo ko xoolee rek ca biir boo ko setantalee rek foofu la jëm lim lay won ci kaw gi ba nga topp ko da day lay da lay la la jañ ba nga topp ko ba dootoo ko mën a bàyyi nag muy sotti ci yow nag ay bon ba gis set muy sotti ci yow ay bon ba yoo xam ne doo ko yëg sax film yeeg nangam nangam film yi man damay wax ne film tubaab yi sax moo gën suñu suñ film olof yi film tubaab yi ñuy seetaan moo gën ci gone yi film wolof yi ndax film tubaab yi dañuy seetaan image yi rek waaye fi mu wala dañuy xam li ñuy wax te lu bon la léegi rek boo demoon fii de dellu ubbi rajo bi léegi ñuy waaj a waaj waaj a dogu rek nga seetaan ay film wala ngay gis ay ay ay ay ay tamsilaat yoo xam ne lépp ci màbb diine ak yàq diine ci la te moom la ñuy dogalee ñun ci la ñuy dog bu ñuy dog moom la ñuy seetaan maanaam nga woor ba ngoon xiif mar yaakaar si ab yoonu yàlla ngay dog ñu tegal la lu yàq sa koor gépp te yëgoo lu yàq sa koor gépp te yëgoo te ay ci ay reetaan rek lañ koy def kat nga defee ay reetaan la fekk jubluwuñ ci reetaan mais tasaare lu bon rek lañ waaw ah. kon loolu lu mat a lu mat xam la lu mat a xam la maanaam ñiy tasaare lu bon kenn amut fitu ubbi sab tele wala ubbi sab rajo wala ubbi sab euh, euh, site internet ne damay tasaare lu bon kenn du ko wax waaye looy def mooy da koy da ngay làqutoo dara ba mën koo def ngay làqutoo dara ba mën def yow ñu amut ay setantal te te léegi mooy li bari ndax jëxlu moom fu mu am rek fu mu am rek ishaatul faaxisha dafa yomb réer fu mu am rek siiwal lu bon dafa yomb ndax sunu sunu sunu jigéen ñeeg sunu gone yeeg nga xam ne jàngunu ku jàngut arab jàngu français jàngu anglais jàngoo dara te yor appareil boo xam ne lu ne mën na ko mën ko ci seetaan mën ko ci dégg fooy xamee lu baax ak lu bon yow yow dangay dangay jël rek dañuy xëpp di la jox rek ngay jël am na ñoo xam ne euh, appareil bii mënuñ cee xam lu dul luñ se luñ seetaan wala luñ déglu waaye mënuñ cee def dara ñoom yow mënuñ cee jàllale dara dañuy jël rek dañ ciy jël rek waaw ñooñu nag la ñuy gën a jekk ñoom waaw dana koy danaa koy wax ay ay ay ay ay ay ay gone yoo xam ne dama leen di gis dafa ne mënuñoo composé numéro téléphone waaye appareil bi ñuy yor lim man mën naa war adduna ak li ci biiram ci la ñuy fanaan bu guddee boobu ci la ñuy fanaan bu guddee nu mënuñoo liir benn làkk ci làkk yi oh, loolu danger bu rëy la boo xam ne ñun ñëpp war dañ cee def war dañ cee def attention léegi nag loolu lépp xam ñun ñëpp xam nañ ko parce que maanaam danger bi fi mu nekk mooy ñun dañuy dund dañuy dund lu bon te ñu ko yëpp kenn ko ne ci noonu yor na appareil bu baax waaye amul kenn ku mën a waat ne appareil bi nga yor bi nga xëyee ba ngoon seetaanoo ci loo ci war a seetaan wala digloo ci loo ci war a kenn mun ko day mel ni sax ijmaan la maanaam dañ cee mandi dañ cee mandi da ngay gis fii naafila gi bu ñëwee wala julli kuy julli ba yàgg mu ne kar mu ne nii xool nii waaye mu ne kar mu ne nii xool nga xam mënut a muñ diirat li muy naafila appareil bi ko muñ diir bi muy naafila rek wala muy julli gee rek mënut a muñ appareil ku ñëw ci jàkka sa ah, téléphone ne karan te doo wuyu loo koy indee ci jàkka ji wala loo koy sone su muy sone yow doo wuyu waaye dana yàq sam xel a seetaan ne demee noonu dana la man kat mënu ma laa téye julli gi waaye danaa fexe ba sa julli gi doo ci am dara julli kese lay doon julli kese lay doon allazina an salaatihim saahuun allazina yuraauna wa yamnuuna maun julli goo xam ne këpp këppal rek la xam nga julli mu sone ngay xool ku la woo xam nga moom teqali ko waa julli boobaa boobu moom nekkatu ngay xool ku boo xoolee ku la woo ba noppi nag door a xalaat nag lu mu lay wooyee ca loola ngay nekk ba julli gi ak ci rek ba julli gi ak ci loolu ngay nekk te ñun ñëpp daf ñuy dal nga xam ne ji li ko tax li tax garaaw mooy ñun ñëpp danoo dal te yëgunu ko ñëpp danoo dal te yëgunu ko xanaa dañoo ëppante rek dafa ëppante rek waaye ñëpp la dal xanaa ñi yàlla musal nga xam ne ñoom dañuy doom du ñu am appareil am na ñoo xam ne du ñu am seen téléphone dañoo lànk am nit ñu am dogu ñoo xam ne moom dañoo lànk ne doom du ñu am téléphone amuñu ay da ay lor nga ca waaye njëriñ a nga ca waaw ndax moom téléphone moom ñu téléphone bii moom baaxut bon moom li ciy baax dañ ko ciy def li ciy bon dañ ko ciy def waaw jumtukaay la rek boo xam ne paaka ñaari boot lu ne mën waaw kon yaatu dim yaatu moo tax mu am ay jeexit nag alal fard wal mujtama daa am ay jeexit yu yu muy bàyyee tasaare tasaare lu bon nit bu ko defee ba noppi nag defe ne deful dara fekk booba bàyyi nag ay jeexit yu rëy rëy rëy ci nit ñi jeexit ba ba ca jëkk mooy xotti ormay nit ñi nit ñëpp yëg nañ ne kenn amatul orma xotti ormay nit ñi kenn amatul orma kenn amatul honneur bis bu set rek mën nañoo yàq sa honneur ci lu tuutee tuutee tuuti loo xam ne benn bouton rek ngay bés muy tasaaru ci àdduna bépp yàq nit yaxeet ba duutu am njëriñ te te honneur mooy lépp ab der mooy lépp nit ki nit ki ab deram man a foor gum foor moo tax suñu borom tabaraka wa taala daf koo fooral ba boole ko ci li tax lislaam jóg lislaam li ko tax a jóg mu di ko aar mi maqaasidu shar maqaasidu shar yi yi lislaam di aar nga xam ne moom moo ko moom moom lay moom wattu ko moo ko tax a jóg da caa bokk wattu ab der nit ki ab daram dañ ko koy wattul bu ko kenn laal bu ko kenn ñaawal ci lu dul dëgg kenn du ko laal kenn ku ñaawal ci lu dul dëgg moo tax suñu borom àgg ci ba ki ko def yàq dërëb jigéen wala mu yàq dërëb góor tuumaal ko loo xam ne du dëgg ah te amu ci ay seere yu leer suñu borom ne nañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar waaw ay bu ma waxoon léegi nañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar yëmu ca sax waaye daf ne ki aar ab deram ba faatu ci waaw kii aar ab deram ba faatu ci shahid lañ koy jàppee man na ko dee ci yoon yàlla boo dee aar sa der ba faatu ci boo fabee sa alal nit danaa fab alal jox ko nit koo xam ne bañ mu yàq ab deram lay doon sàmm ab deram tax mu nit koo xam ne am na nit ñoo xam ne li ñuy dundee du dara lu may nit ñi dañ leen di jox ngir sàmm seen làmmiñ noppiloo leen nit koo xam ne da ñaawu làmmiñ da ngay tasaare lu ba ku lay jox da lay jox ngir nga noppi ci moom am na am na ñu ni mel ñu naan diw sàngam moom du ko wax dara ndax la koy jox dara waaye ka ko waxul dara ka ko ka dara moom mu yox ci moom lu ko neex mu yox ci moom lu ko neex te loolu yonent bi sallallahu moo ko waxal boppam nee na li nit fegee ab deram sa der li koy yàq nga fab sa alal def ko ca nee na loolu sarax la la ko yàlla jàppeel ab sarax la maa waqaa bi il marhu ardahu kutiba lahu sadaq kutiba lahu sadaq li nga li nga aaree sa der joxe ko te dara taxut nga joxe ko yàlla taxut sax dara taxut waaye li tax nga def ko nag mooy nga aar sa der bii ba kii du yàq sa der ndax yàqkatu der la nga jox ko alal ngir aar sa der nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sarax la yàlla dana ci fay ab yoon kon bi ci njëkk ci jeexit yi mooy yàq deri nit ñi yàq deri nit ñi laal seen karaama laal seen sharaf wuññi seen sutura ñun ñëpp gis nañ loolu ne adduna bi yomb na fi lool léegi bis bu set rek nga dégg ci loo xam ne doo ko mën a doo mën a xam lu mu doon ba ca des mooy tasaare lu bon day tax nit ñi duutuñ faale lu bon tasaare lu bon jeexit ji muy am ci societé bi société bi day dem ba mujj lu bon duutu nekk lu am solo ci ñoom bu yëggutoo njaay rek am na baat yoo xam ne ñun ñëpp dañuy toog ci suñuy saal toog ci suñu kër nekk ak suñuy doom ak sunuy soxna di ko waxtaanee ku ko masaan wax da ngay maanaam gone yi dañuy jóg baat ay baat yoo xam ne rek mi ngi tasaaroo ci suñu biir ñun ñëpp ñu di ko waxtaanee waaye jamono yu néew ci gannaaw rek kenn ñi mu ngi ko woon a tudd ci ko woon tudd foo ko masaan tudd rek dañaan ah ñëpp dañuy xoolaat xam ne yow mii doo nit ku yiw ndax yii baat ku koy tudd doo nit ku waaye baat yooyu léegi ñun ñëpp koy tudd ñun ñëpp ci la fanaan ci la ñuy yam di ko diglu mu mu yof woyof ci nun lool wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi lu ngeen jàppee lu woyof te màgg fa yàlla lool ay baat ay baat rek waaw istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna bi afwaikum waaw ngeen di wax waxan waxantu ci seen làmmiñ waaw di wax ci seen làmmiñ di di diglu ci seen seen seeni nopp loo xam ne da di jàpp ne du dara te lu màgg fa yàlla la te lu màgg fa yàlla la maanaam lu lu lu grave noonu man eh, eh, li ñu ak eh, maanaam li wax dir xayaa al ijtimaa yi maanaam li doon aar mbooloo mi ci ñu diglu lu bon di leen aar nga xay bu ñu ko déggee sax dañuy xaw a gêné wu waaw dañuy xaw a wu tuuti léegi kenn gêné wu ci déglu lu bon léegi baat yu bon yooyu baat yu bon yooyu kenn gêné wu ci dañ koy wax mel ni waxuñu dara mel ni waxuñu dara te loolu ci ci ñëpp la danaa ci occasion nag ci ci ci ci sunu dëkk bii wala suñu réew mii sunu dëkk bii dangay toog diggante deux heures ak trois heures ci rajo yi waxuma la sax ñooy wax lu bon nga xam ne ñoom xam nañ ñett waaye ngay déglu sunu rajo yii ay nit nekk ci ñoo xam ne dañuy ñu ngi tuubaa ñoom waaw fi lañ dëkk am nañ ci kër joxe seen adresse joxe seen lépp ñuy wax ay wax yoo xam ne boo fa sa doom nekkee da koy tëj nee ay jabar lañ dañoo mën dara dañoo am lu ñu man waaye la ñuy faj nañ koy waxee da ngay rus ci wax ji ba boo toogee ak say doom da koy da nga koy tëj wallahi la kenn ku nekk rek da ngay diglu loolu doo xam di lu mu doon ni musiba musiba moo xam ne ñun ñëpp bis bu set deux heures trois heures quatre heures diglu rajo yi nga xam amatuñ lu ñu wax amatuñ xabaar amatuñ dara ñooñu rek ñoo koy fees dal wax yu ñaawa ñaawa ñaaw yoo xam ne kenn mënu ko dégg kenn mënu ko dégg saayire li ñuy wax saayire wax ju fii ci wax wax wax yi xawoon a xawoon a jekk sax dañ koo mu murid dafa am waxin dafa am waxin teggin waaw waaye ñu dem ba nga xam ne yi xawoon a yi xawoon a tegginu sax dañ koo dañ koo weesu tey say yëpp di ko diglu di ko wax dañu ko wax nee nañ dañuy faj nee nañ ay sëriñ sëriñ lañ ay sëriñ lañ tudde sam xanaa du sëriñ sax xamu lu ñu ko war a tuddee léegi ndax ñoom ñoom du ñu sëriñ ay jabar lañ leen di war a waaye duñu sëriñ wax ju ñaaw yoo xam ne xaw ma ku ci man dara dey waar nga war na ci sàkk ndax na trop daanaka li ñuy wax li ñuy wax ñi joué ay film yoo xam ne di di film yu bon yooyu ñuy ñi lu bon waaye ñu ngi ay film yi wax fii ci sunu dëkk wala ci sunu réew film yoo xam ne ñi koy wax li ñuy wax bu ñu ko doon wone adduna tuuti waaye wax ci ak ak jëf ji ñooy képp te ñëpp koy seetaan bàyyi ko mel ni du dara wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi ne lu yomb la rek te màgg fa yàlla lool waaw te jëf ju wax ju bon moom waxuma sax ki koy tasaare waaye yow mi ko def sax yàlla def na sutural yow mi def lu bon yàlla def na ne suturalal sa bopp beru nga ci sa barab def nga fasalu bat ma suuturaal la wunuma ko kenn waaye nga xëy di ko waxtaanee yow léegi noonu nit ñi noonu la ñuy def léegi li ma def bii nanga ma ci nangal ak fi ma jaar nanga ma ci nangal ñu di ko waxtaanee ñoom li ñu def ci lu bon waxuma ne keneen def waaye li ñu def ci lu bon moom dañ dañ def ci lu dañ koy waxtaanee loolu moo gën a garaaw waaye beneen bi ci des mooy tasaare lu bon bu demee ba tasaaroo ci mbooloo mi li mu leen di indil mooy daf leen di indil ay musiba ay feebar ay feebar ay bekkoor ay balaa ay balaa dafa naa yéen ñëpp seetlu ngeen jamono yi mu ji xaw ma day ya jëkk waaye jamono yu mu ji at mii ak at mi ci taw Sénégal am na fi jànkoonte na fekk ay balaa ak i musiba loo xam ne soo ko comparé ak yi ngay dégg ak yi ngay gis dangay xam ne du kiimaan du kiimaan ci loolu am zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas kenn teguñu ko ñoo ko teg suñu bopp bu ko defee ñuy wuti ay xulul ak solution fu ne te fekk yow yaa war ci li la dal yaa ci war yaa ci toog accident yeeg lakk yeeg nangama ki nangama ki nangama ki nangam yëpp choléra beeg ak euh, euh, corona beeg feebar yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg nee na saa lu bon siiwee ci seen biir ba tasaaroo danaa wàcce loo xam ne mosu leen koo gis ci seen imaam addis la lam tashari alfaxishatu fi qawmin xata yuminu biha illa lu ñaaw saa bu saa bu lu ñaaw da bon na yàlla ba bañ na ko waaye neen saa bu tasaarooyee seenu leen lu ne du ma leen def la ma defoon nit ñu njëkk ñi de yàlla moom nit ñu njëkk ñi mu ku ci masaan def yu mel noonu yàlla day wëlbati ko suuf si wëlbati suuf si ba mu tawal leen ay xal ba mu sonn leen ay na yonent bi sa sa waa këram def loolu waaye nag du tee yàlla nag dese na lu bari choléra baa ngi fi corona baa ngi fi sida baa ngi fi accident yaa ngi fi lakk yaa ngi fi yépp nag ci biir te dara war na ko lu may lu may bi maa kasabat ay dina nit ñi ñoo ko defal seen bopp kuy xëy di diglu lu di seetaan lu ba ngoon nga defee ne da nga fanaanoo jàmm boo ko fanaanoo yàlla dalaa waaye waroo ko fanaan waxoon naa ko de yàlla daf laa yërëm la ajuma wala barki dem démb kon loolu addis addis boobu bu ñuy faral di waxtaanee la maanaam yonent bi daf ci lim juróomi mbir yoo xam ne nee na saa bu ñu demee ci jamono ba mu am rek séenu leen lu ne lu ñëw rek bu leen bett ba ca njëkk nag mooy siiwal lu bon lu bon feeñ fés ba kenn tëggatu ko dara mais bu loolu amee rek lu ne rek seen leen ay feebar sax la wax ak i balaa ak i nattu te ñun ñëpp gis nañ loolu waaye saa bu loolu amee ñu ne nag bu dee bu dee accident ñu ne safar ya bu dee lakk ga ñu ne waa marché ba bu dee nag duñ delluwaat ci asbaab raisiya sabab yu dëgg dëgg dëgg dëgg ci suñu bopp la noonu la sabab yu dëgg dëgg ci suñu bopp lay delluwaat te yàlla dafa bari yërmande ndax loolu lu tax mu di ko def mooy dafa bëgg rek ñu del siwaat waaw li yuziqahum baad alladi amilu laallahum yarjaun ne dama leen di mosal ci li ngeen di def rek lu li ngeen di def ma mosal leen ci tuuti ci ay balaa ngir ngeen daw del siwaat ci man ba ma yërëm ne xam ne yooyu xew ay yërmande yàlla la sax ndax waaye nag fa muy doon a yërmande yàlla mooy mu mu mu xëcc nu nag delloowaat ñu ci yàlla waaye bu fekkee dañ cay continue nag lay ñëw moom kenn du xam lu muy doon xam lu muy doon léegi nag loolu mën si ca wax lu baree baree baree baree bëri ishaatul faahisha ak bon gi bon ak li muy loree nit ñi ak li muy indi loolu rek doyoon na sëkk mën xat-xati jamono jii rek xat-xati jamono jii dundu gi cher geek nangam nangam ak karang karang ak lépp ñu di ko soow di ko jiiñ ku ne am ñu ca am sabab am nañu ca am sabab waaye sabab bu rëy bi nag mi ngi dellu ci nit ñi nit ñi wàcc guñ wàcc yoonu yàlla te yàlla ne ku wàcc sama yoon yu ma teg la fii man man yoon yu ma teg eh, eh, xotti ku ko wàcc danaa la teg lii ñu wàcc ko ba noppi nag yàlla di ko teg ñu di ko jiñ ku ne su fekk na dellusiwuñ ci suñu bopp il faut ñu dellusiwaat suñu bopp léegi nag booy wax dellusiwaat sa bopp day mel ni ay caaxaan ndax day mel ni nit ñi mënatuñ ko fii ni maam maam mun nañ ba ma àgg foo xam ne continuer rek lañ ma wéy rek wéy rek léegi nag lu koy faj luy wàññi loolu si ci tasaare googu ñuy tasaare lu bon lan moo koy wàññi lan moo koy wàññi bam bam buñ ko mënta bàyyit mu wàññi ko lool la koy wàññi ci ñi koy def laay wax de ñi koy def mooy ñu teewlu li yàlla tëkkoo ñuy tasaare lu bon foo tollul nga di ko jàngal sa bopp wala nga di ko diglu ñu di ko waxtaanee ñuy tasaare lu bon li leen yàlla dig mu rawwiju al fawaaxish ñu koy tasaare di ko diviser di ko partager ñu koy def yàlla li leen dig mooy lahum azabun alimun fi dunya wal axira fi dunya wal wal axira kon saa booy saa booy teewlu eh, nusuus yooyu texte yooyu ñëw sunu borom tabaraka wa taala di ci wax ñiy siiwal lu bon ci aaya yu baree bare baree bari lan leen dikk ci àdduna ak lan leen dig ci alaxira kon danga nga wattandiku siiwal lu bon boo ko mu tuddi nit yow doo ci bokk ndax ndax ki koy wax ak ki koy siiwal li ma ko waxee woon rek benn la al yonent bi sallallahu alayhi wasallam al qailu lil fahisha walladi yashiu biha fi l ismi sawa nee na kii wax lu bon ak ki koy siiwal bàkkaar bi jóg ci yam moom sax am na sax koo xam ne sax mën naa ëppale ndax kii wax lu bon moom bu yemee ci boppam moom benn bàkkaaram rek la jël waaye yow bu koy siiwal nag bàkkaar yi ku ko dégg da nga ko jëlaale yow da nga ko jëlaale bokk na ci li koy fajit maanaam nga ngay seetlu mujjub ñi méccewoo loolu ñi méccewoo tasaare bon wax ju bon ak jëf ju bon ñu ko méccewoo ba wutal ko ay jumtukaay yu ñu koy tasaaree sax far ay tele ak ay rajo ay film ak ay nangam ak nangam ñu am ko mën nañu tudd artistes yi lu ëpp ci artistes yi ñiy woy ak ñiy fecc ak ñiy euh, def théâtre ak ba ci sportif yi sport yépp ñenn ñu nekk ñi ngi tasaare lu bon di ko làqoo lu baax yéen ñi nga xam ne yoonu itteel na leen gis ngeen bërki démb wala ci weer yi jàll rek ay ay ay ay ay ñi ñoo xam ne football dong la ñuy def waaye ndekete football ba dugal nañ ca loo xam ne dañ naan na da sol mbubu sàngam moo xam ne ñu bon ñi ñoo koy sol ñu bon ñu ñoo koy sol da nga sol mbubu moomu ngir wone ko kon yow yaa ngi tasaare lu bon football dong yaa ngi koy def defe ne da dóoru bal rek fekk yaa ngi tasaare lu bon te ñu ko nga ba ci sport ba ñi yàlla dimbali na nga xam ne ñoom am nañu gëm wala des nañ dara dañuy lànk loolu duñ ko nangu waaye ñi ëpp moom dañ koy nangu ndax jàpp nañu dara waaw journaliste yaag borom euh, rajo yaag ñëpp léegi gis nga gis nga site yi ni baree gis nga télé yi rajo yi ni mu baree waaye xam nga ne loolu wóor na la ne ci alal ju toll noonu ji ju ñu waaye dafa am ñu ne ci seen gannaaw di leen tasaare loolu bon waaye nag nañ muuroo lu baax nag waaw ah, bu koor gi dikkee ñu wut ay ustaas ñuy waaraatee nangam ak nangam bu waaraate bi jeexee ci saasa ñu teg benn émission boo xam ne lañ ma boobu lañ defoon lépp da koy màbbat maanaam fii kii waaraate rek buy noppi fi benn boo xam ne lim lim defoon lépp dañ koy màbbat te duñ ko wax waaye dañ koy jëf dañ waxoon lépp waaw ah. kon siiwal lu bon du rek nit ki day wax ne man damay siiwal lu bon loolu bëri waaye day bari ñu ko làmboo ñu mbuboo lu baax te la leen tax a jóg mooy siiwal lu bon moo leen tax a jóg waaye benn bi ci des mooy ñu mën a bo ngir nga xam bon gum bon ba nga mën ko wattandiku xoolal rek yow xoolal seetlul rek ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey nag ñoo yàlla baal barab bi yeyowut loolu ay fecc katak wala ay woy katak wala ay eh, ñuy def théâtre ak wala ñuy nangam te nga xam ne loolu yooyu tam waxuma ne yëpp a bon waaye am na ay nit yu koy làmboo lu koy yu koy yu koy yu koy tuddoo ngir mën a tasaare seen lu bon waaye xoolal seenu mujj ñoom ñooñu seetlu ko rek xoolal seenu mujj barki démb rek damaa xoolaan ci télévision bi koo xam ne ku siiwoon la ci yooyu ci riyaada sport ci ku siiwoon la mu dem la mu mu mel ni faatu na sax defe naa ne waaw maanaam mu muy jàmbat sàggane buñ ko sàggane amatul lu mu fajoo mi ngi mi ngi tawat te amul lu mu fajoo ñam bokkaloon muy mu fajatuñ ko état bi nga xam ne moo moo moo moo ko doon taxaw day taxawutu kenn taxawutu mu jaaxle lool te li ëpp loolu lu baree bari lay xew ñu mel noonu boo seetee seen mujj dañuy am alal ju bari am ay bien am lu ne waaye boo nee ba ci seen mujj rek da ngay gis ne amatuñ dara ñu yàqule dañuy dañuy dañuy yàqule man alal ju bari ja boo ko xoolee léeg nga gis ñoo xam ne bu ñu ne nangam la ñuy fayu par weer wala nangam la ñuy fayu par genn guddi nangam lañ ciy am muy alal ju bari waaye boo xoolee seenu mujj buñ guddee fan da nga dégg ci ñoom loo xam ne da nga naan kii xanaa du du du ko doon wax ngir mujj ñaaw rek ngir mujj ñaaw rek tepp waaw bi ci des ci mujj mooy yow mi koy def nga seetlu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga xool nattale résultat yi ci génnee ci yàq ay jikko ak ay diine yow nga bokk ci senegal di ab sénégalais wala sax dëgg moo mën a dëkk ngay tasaare katu lu bon ci wasaayil yu mën a doon nga di ko tasaare ba ba xool société bi nga dëkk gis na lépp yàqu na gone yépp yàqu nañ ci foog ci tëgg ci woy ci nangam ci nangam ci nangam ak ci nangam ak yàqu ba amatul njariñ amatul njariñ seen bopp amatul njariñ seen société ñoom ñëpp ñu yàqu yow ngay xoolaan loolu nag te gis ne lii kat yow sa loxo gi ci lii lii lii xew nii nga di ko seetaan sa loxo gi ci te booba mënatu ci dara ndax jeexal nga kat sa kàttan jeex na sa lépp jeex na waaye nag lii yàqu nag lépp wër la nag nga gis ni mel nga xam ne yow ci nga bokk ñi ko def ci nga bu ko defee li nga yëg na li wax wax oqdatu zam sa sa sa sa conscience daf lay yedd sa conscience daf lay yedd saa boo tëddee doo nelaw ndax xam ne lu bon lii am man ci laa bokk lu bon lii tasaaroo ba gone yi mel nii man nii ci laa bokk def naa ci nangam def naa ci nangam def naa ci nangam te mu wér la lool te ko dindi waaw mën naa am sax ngay tuub fa ngay tuubee day mel ni tuub dafa weesu donte ne tuub dana yeex lool ñu bañ ko nangul nit ki waaye am na loo xam ne boo ko dee def ci lu bon dem ba mënatoo ko nga ne tuub naa tuuboo al aana waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidin firawna ba mu demee ba dara des ci lu dee mu ne léegi gëm naa yàlla na ko déedéet gëm amatul yàq nga li ngay yàq ba noppi waaye am na ñoo xamante ne li ñu yàq tant que li ñu yàq mi nga am te nuñ koo dindeeti nag dan dañuy faatu wala bu ñu faatu te ñi ngi dund waaye mënatuñ koo dindi te yàq gi mi ngi continuer même bu ñu ko tuubee yi bàkkaar ya am moom da di fekk kon ku xalaat loolu ne lu mel noonu mën na laa dal boo noppee waaw gis nga ñu bëree bari ci ñoom ci ñiy tasaare lu bon da ngay gis bu ñu demee ba màggat wala ñu xaw kii ñu naan dañuy tabax yi jàkka ak dañuy dimbali nangam nangam dañuy dimbali nii na man man alal ju araam mënoo cee def lu baax mënta nekk mënoo am alal ju araam tabax ci jàkk ba yàlla fay la ca yoon mënoo ko saraxe ba yàlla fay la ca yoon jàkka ja nag ñu cay jullee mën na caa julli te nga sarax mën naa lekk waaye yow dara yow mi ko xam yaa ko def kenn mënu lu baax léegi nag loolu siiw te li ko tax a siiw nag mooy ñi ñu koy jox it léeg-léeg dañ koo xam ne alal jëm yor dara baaxu ci ñëpp xam nañu kii alal ji jëm yor baaxut mu di joxe ñu naan diw dafa tabee diw nangam nangam diw dafa lii baaxal ko lool te la ñuy dafa bon yor lépp dafa arab waaye lu mu joxe rek bu joxe alal rek ñu ne ah kii baax waaw wala ñu ne taalube la wala ñu ne jullit la nangam nangam yooyu ñuy wax waaw gis nga loolu kon yooyu yu mat di xalaat la ku koy xalaat di teewlu liñ ci wax ci yi ca la tëkku nit gi di teewlu mujj gi mu ñaaw gi nga xam ne moo leen di jot di teewlu bon gi am tey tasaaroo te yow nga yëg ni ci nga bokk te mënoo koo faj yooyu yëpp ko koy seetlu dana la wattandiku loo tasaare lu bon loo ca doon def da ko wattandiku loo ca doon wax da nga ko wattandiku kon mbokk yi lii mooy ishaatul fahisha tasaare lu bon xam nañ ko xam nañ ab atteem xam nañ lor ji nga xam ne mën na koo lor nit ñi ak mbooloo mi yépp kol nañ ko wattandiku bu baax a baax ndax ñu mucc ci ay ayam ci àdduna ak alaxira ndax kat ab jullit du ku ne may julli rek waaye al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yonent bi sallallahu sa wasallam nee na ab jullit dëgg dëgg dëgg dëgg du koy julli rek di sëlbal waaye ab jullit mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci saw làmmiñ mucc nañ ci sab loxo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man haajara maa nahaa llaahu anhu ab gàddaay kat dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki gàddaay li naqari yàlla bàyyi li naqari yàlla neen kooku mooy ab gàddaay dëgg dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ bi nga xam man na ñuy nga xamante ne bi ñoo daga woon tomb bi ñu doon waxtaane mooy isaatul fahisha wa xataruha ala alfardi wal mujtama muy siiwal lu ñaaw wala lu bon ak danger bi mu am ci nit ki wala ci société bi ak ci société bi boobu kon tomb boobu ki ñu ko doon defal di xam Cheikh Mouhamadou Mountakha Diatara traité ko traité bu am solo nag wàccee ko ba mu suufe ci jëflante yi nga xam ne nit ñi dañ koy jëflante ci jamono ji mu mel ne lu am solo la ci ni mu ko waxee day mel ne tasaare lu bon du yam ci ki nga xam ne moo koy tasaare rek waaye day dem ba euh, royaat ba tasaaroo ci askan wi mbooleem loo xam ne suñ borom subhanahu wa taala da koy euh, indi ci loo xamante ne bi am mbugal la day dem ba tasaaroo ci ñi nga xamante ne bi ñooy déglu loolu wala ñu koy fekke wala ñi nga xamante ne bi sax ñoo koy seetaan dem ba nga xam ne Eh, day royaat ba ci ñi nga xam ne xëy na seen yoon nekku ca ndax lu mel ne loolu mu mujje dem ba nga xamante ne bi dëkk bi ñuy def lu bon nekk sax ay feebar dafay am yoo xamante ne bi kenn du xam lu koy jur kenn du xam nu muy tasaaroo loolu itam ku nekk lay dal du dal du yam rek ci ki nga xamante ne bi moo koy def kon ñi nga xamante ne bi ñooy siiwal lu bon wala ñu di ko def nañ moytandiku loolu te dellu ci suñ borom subhanahu wa taala tuub tuub bu sell suñ borom jéggal leen Euh, kon euh, ginnaaw waxtu wi dafa jot dañuy dugg rek ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu war a def suba muy wax fa taamuliya fi ibaratil xalifa xawlal mu mujamma bu mu laal suuf ki ñu ko war a defal di euh, docteur Khadim Silla ñu miin ko bu baax ci taxawee waxtaan yu mel noonu ak waxtaan fii ci biir jumaa ji dafa mel ne lu jëm ci wàllu laaj yi itam laaj fattuwaay képp koo xamante ne bi am nga laaj boo xam ne war nga ko mën a laaj ñu dugal ko ci xattuwaay da ngay woote ci numéro yi muy 77 678 57 66 77 678 57 66 wala 77 072 94 76 kon ñi ngi gërëm ñëpp di leen sant euh, di leen wax ne ñoo ngi dox di daje ba suba ak jàmm incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh